Euh, salaamaaleykum internet bu Sénégal alors tey fête de la musique bu ñu ko waxee nag dañuy wax ndaanaan yu nekk yu ëmb musique bi tey du ñu jël artiste demuñu ci koo xam ne dafay way dañoo ñëw toog ak koo xam dafa maîtriser musique xam lan mooy musique ñu waxtaanee ko ci 21 juin bi ma bàyyi ko mu nuyoo. Euh, Aïda asalaamaaleykum euh, ñëpp maa ngi nuyu ñuy seetaan euh, émission bi yëpp à travers Sénégal. Mhm. Diaga nga oh. présenté wu un peu ñu la xamul. waaw waaw man la Diaga Mbao Dieye di PDG Diaga Consulting. Mhm. bi nga xam ne benn cabinet buy def événementiel la buy accompagner des artistes ci management ci consultance ci marketing communication ba ci événement. Mhm. suñ la waxee 21 juin sax xel ci lan lay njëkk a dem. waaw 21 juin dafay nekk ci melomaan yi fête fête boo xam ne dañuy fêter musique musique di loo xam dund doomu aadama ah, du côté de bu engagement du côté de art pour art donc 21 mhm. juin daf ñuy renvoyer carrément ci fête quoi. Mhm. yéen ñi proche ak artistes yi mën nga ñu am rappeler ñu artistes yi ngay gën a proche ni ngay gën a collaborer. Euh, pardon man ne ñi ngay gën a liggéeyal artistes yoo xam ne yow da ngay collaborer ak ñoom. Euh, kooku bu ñu koy wax de ñëpp ci Aïda lañ koy xalaatee. Mhm. ndax voilà moom lay gën a collaborer. Mhm. alors 21 juin Sénégal dan nañ ko fête en grande pompe dañuy dañ def ay concert di def ay spectacle mais de plus en plus bu ñuy gën a dem day gën a wàññeeku lan moo indi loolu. waaw loolu boo ko gisee tey ji am na lu ko waxal si ginnaaw. Mhm. parce que je pense que euh, musique dafa am du mu àndal loo xam ni peut-être tey ci je dis bien que artistes sénégalais yi euh, ceux qui sont au devant de la scène les leaders vocaux peut-être ñoom ñoo ci bàyyiwul xel ba mu ëpp muy di euh, industrie musicale dafa nekk lu am solo lool mooy pousser tax ba à chaque fois saa bu naree dee rek nga dekkali ko. Mm-hmm. donc loolu tant que bàyyiwuñ ci xel affaire bi day dellu ginnaaw. Mm-hmm. mais yow comme da am structure boo xam ne day accompagner artistes si événementiel sax yaa ngi koy wax ban utilité nga mën a apporter artiste bi moom. voilà li ma mën a apporter artiste bi déjà mooy ñu liggéey ci euh, déjà de la production euh, genre maison de production bi ñu nekk jugee ci maison de production bi dal ci euh, vraiment média bi jugee ci média bi dal ci management bi. jugee ci loolu liggéey ci ak musicien yi nga xam ñooy accompagner artiste bi. Mhm. jóge ci loolu dal ci artiste ba wàcc ci mélomane bi. donc li ñu mën a apporter vraiment vraiment artiste bi mooy fexe mu dugg ci xolu doomu aadama yi li muy jox doomu aadama yi di dugg ci seen xol ba en fin compte moom mu libéré wu fiix ndax fiir yaa ngi bégal doomu aadama yi yow yaay njëkk gën a nekk à l'aise mhm. donc mettre à l'aise carrément l'artiste ñu bëri dañ naan artistes yi nag dañoo structuré wuñu que yi ñoom seen bopp lañuy demee seen staff seen mbokk yi dañuy jël euh, maanaam euh, seen seen organisation dafa des artiste Sénégal seen organisation dafa des lan nga xalaatee loolu. effectivement donc loolu déjà moom mooy problème principal bi nga xam ne moo tax tey musique di dellu ginnaaw artiste Sénégal bépp artiste Sénégal. Mm-hmm. la majeure partie dañu ragal structuration. Mm-hmm. bu ñu ñemee woon structuré wu tey jii je pense que musique bi du def pas de recul ca kaw lay jëmle ca kanam pour nag nga jiite ay nit c'est c'est difficile mais certes c'est un investissement à long terme il va il va il est forcément euh, euh je sais nga war a mën a structuré wu war a mën yor une équipe boo xamante ni moo nekk derrière toi parce que xam nga liggéey artiste dafa metti tu as besoin de maintenir ta voix bi pour nga soigner ko t'as pas besoin de bouger beaucoup pour pour pour pour euh, vraiment day détériorer wu bougement yu bëri yi donc tu as de d'avoir une équipe boo xam ne moo nekk derrière que ça soit dans le domaine de la communication ñu lay jàppale dans le domaine de l'organisation même recherche fonds yi ta as besoin d'avoir une équipe boo xam te ñoo ciy liggéey et loolu ça à long terme donc il structuration bi moom franchement tant que nekkuñu di ko liggéey doo ci mën a jàll te et sax loolu mooy mën a doxal industrie musicale bi. mais loolu euh, artiste sénégalais duñ ko def li ngay wax nii yëpp ñoom dañuy jël seen ñaari nit rek après avancé. waaw que loolu dina doxal musique sénégalaise. non loolu du ko mës a doxal. Mhm. loolu peut-être tey jii euh, mooy li ñu bëggul wax te bëgg te wax ko mën a wax quoi euh, musique dafa soxla encadrement un bon encadrement nag. soxlawoo ñaar wala ñett nit sa ginnaaw. t'as mhm. besoin de toute une équipe. Mhm. ah parce que kenn ku nekk ak rôle ba nga war a jouer ci biir. te kenn ku nekk bu defee la nga war a def sa liggéey day feeñ. te liggéey boobu mooy indi spectacle bu vivant bi nga xam te ne moo mën a motiver doomu aadama yi yëpp ñu mën a génn dem xool ji li xew. Mhm. pour yow lan moo tax Sénégal ba tey ñuy wax musique sénégalaise musique sénégalaise mais mënuñoo am industrie musicale boo xam ne tey dinañ ko mën a exporter lan mooy blocage bi pour yow. waaw premièrement problème mooy li nga xam te ni moom lañu moom muy la tradition. lu bëri dañ koy dañ koy bon je dis pas ñàkk dem mais dañ koy jàpp à la légère quoi te loolu nga xamante ni mooy suñu base bu ñu ko jàppee ba mu dëgër leneen lu ñu ci dolli dañuy am lu wëri donc li njëkk mooy comme musique traditionnelle. musique moo war a gën a mën a dooleel musique Sénégal ubbi nag. mais xale yi dootuñu dégloote ay traditionnel de. non mais traditionnel ça paye xam nga musique du juste xale yi rek ñoo koy yëngal musique. dafa nekk loo xamante ni tey jii tout le monde a besoin de ça ça dépend nag ku nekk ni nga koy dégg musique traditionnelle mën na am douceur boo xamante ni dina neex xale yi dina neex mag ñi parce que c'est c'est beau hein c'est c'est vraiment très joli euh, suñu musique traditionnelle. waaw <laughs> mais mais xale yi nag dañuy bëgg luy xumb. luy ambiance. bien xam nga loolu tamit euh, est-ce que duñu jéem a xool foofu rek lu ñu yóbbee ay ñoom bas cung ak yooyu noonu ñu xumbal américain yi fecc loo leen waaye musique traditionnelle di ki la ki ne laam ñoo ko fi doon def ay ñoom Mati Thiam Dogo mais ñooñu tey dama naan mayu ñu leen gën nu gënuñu leen fësal seen musique est-ce loolu tamit mën nga xalaat ne mën na mun na kay industrie. waaw en fait loolu ci communication ba la. Mm-hmm. tu la communication est importante dans la vie de l'artiste. il faut savoir communication du tëb nii rek de gauche à droite jëlti communication da nga koy da nga koy teg ci yoon je pense que am na côté boo xam ne boo ko liggéeyee ci communication sa musique du dee day dund saa su et vraiment je rends hommage à suñu papa Thione Seck ci bés bi tey di ñaan yàlla mu yeewoo àjjana liggéey na ci lu bari suñu tonton Youssou Ndour aussi pareil Baba Maal ki ne la Kumba Gawlu Seck mhm. moom aussi di ko ñaanal tane mais aussi tey jii bu ñu naan révélation musique traditionnelle on peut pas ne pas parler de Aïda Samb franchement mi ngi ciy bay waaram a 100 pour cent donc moi je pense que musique traditionnelle bi mi ngi fii te gars yi bëgg nañ ko ndax kenn du bañ li nga doon d'accord mais li des rek mooy xaw liggéey ci côté structuration bi il est important ñu liggéey ci ba kenn ku nekk xam ne ci yow lii nga ŋànk ci bi ñu mën ci avancer. loolu je pense que bu ñu ko nekkee di liggéey ci côté musique bi day avancer il faut faire des spectacles vivants maa ngi rendre hommage à Wally franchement moom aussi mi ngi ciy bay waaram mu ngi def léegi ay spectacles yoo xam ne macha allah ça donne envie de de d'aller voir ce qu'il est en train de faire donc ces genres de personnes da leen di jàppale parce que ñu ngi koy dundal. ñu mhm. ngi engagé ku mel dañ koy gis tamit moom it day def spectacle effectivement c' est un très grand chanteur Pape Diouf. Mhm. Pape Diouf c' un très man su ma assisté euh, concert am damay xam ne kii vraiment sama xel yëpp day nekk ci Youssou Ndour. c' est il est il sage il est cool ba pare day joxe lu lu rëy la lay jox ci ay spectacle am. te su ma la doon wax artistes ñu taxaw noonu ci nouvelle génération ñoo xam ne tey ñooñu mën nañ compter ci ñoom pour musique bi mën a avancer. mënoo ci génne waali parce que li musique bi di laaj mi ngi koy joxe. Mhm. déjà moom mi ngi ak background. Eh mais mais waali defagul traditionnel benn benn morceau dafi def traditionnel. waaw. <laughs> de la. benn ah, morceau waali waali ambiance mhm. Mhm. am am na ndeysaan. Hmm. te traditionnel bi boo bëggee dégg ndeysaan rek ñu ngi ci traditionnel bi waali musique am am na ndeysaan. day def traditionnel. si il est de faire de de la traditionnelle franchement. Hmm. mi ngi def traditionnel m est vrai que mi ngi touché feneen parce la musique échange la musique partage la donc da ngay laal fii laal fee mi ngi mi ngi mi ngi traditionnel. ah lu mu defee traditionnel jaaga expliqué ma waale lan la traditionnel fii. non mais waale bëri na ay soom du ma déglu bëri lu bëri bëri bëri nag. Euh, hmm. kii mais je pense que waale mi ngi def traditionnel mi ngi def traditionnel sa voix. dafa traditionnel la. Mm-hmm. Mm, ça va est carrément traditionnel. pour yow daa war a pousse côté boobu noonu. wala bien sûr war na ci mën na ci man man bu doon bon je sais pas quoi mais sama sama xalaat moo di tamit war na recherché waat encore ci page papam reprendre ni parce que may ñu nit ñi dund encore euh, Thione Ballago Seck ñu ngi koy xaar ci moom. Mm-hmm. man daal d'accord ma foofu mais nañ jàll rek comme say avis la mënuma ko kii waaye daal traditionnel benn soo laa ko traditionnel. mais ay décembre peut-être dinañ gis nañu way daal di yooyu yëpp ay traditionnel la. Ah, kooku macha allah ay daanaan la ci biir daanaan. Mm. franchement daanaan la ci biir daanaan kooku traditionnel d'accord certes à 100 pour cent mais foo mu wuy c'est ay Kumba Gawlo ay titi yooyu sax jaaga soo moo xee yooyu sax ma mën waaye waale tamit benn rek la way <laughs> waaye bàyyi waale <laughs> ah non non jàpp kii wu ma ko de clash ma ko mais boo waxee traditionnel man je m'attendais à ce que nga wax ma ay décembre nga wax ma ay ñoom titi parce que jigéen ñi laay gën a gis ñooy fësal loolu traditionnel ñoom ñoo ci gën a appuyé wu ñoom ñoo ci gën a bëgg a jëmale ko kanam daal que que góor ñi ah par exemple bon je pense que ñoom tamit ñu ngi def seen seen ñu waar ah ñu ngi def seen waar sauf que du ma doy quoi il faut toujours comme on dit yokk cere dolli ñeex pour que mm-hmm. affaire yi gën a mën a saf je pense que xam naa ne Wally bu dégloo sa interview bi dina ci jël leçon <laughs> est-ce que liggéeyal artist metti na yee yombul nag mësul yomb parce que seen caprice yi yeeg waaw caprice yi moom léegi naa am caprice artiste de <laughs> matinal bi nii des fois ñu dikkale <laughs> ah yow laay dégg de dégg naa yéen sonn ngeen de. ah bon dañuy xëy ñu leen di ci ba toog di leen xeelu. ah non non non je veux pas te voir. ah non non non ah duñ def yooyu. non yooyu moom peut-être ay rumeur la rek. mais moi hmm. j'ai jamais vu ça mosuma gis kàr. ñoom au contraire ñoo lay gën a di appuyer di la woo pourtant hmm. pour ngeen nekk ci waaw mais caprice yi mais du ñàkk nag parce que ils sont dañuy surtout jigéen ñi dañuy sonn boo xoolee par exemple benn jour nga war ci maquillé wu deux à trois fois pour génn nga war a daw seen bi yow taloo sa bopp toujours yaa ngi xool noo bëggalee nit yi c'est pas évident parfois moom c'est c'est stressant. Mhm. mais bon dañ koy gérer mhm. yombul nag parce que euh, ils n'ont plus de vie wax dëgg yàlla ils plus de vie. Mhm. Mm. mais nee nañ tamit jigéen ñi ñoom dañoo xaw a ñoo xaw a par exemple presse bi nee nañ jigéen moo gën a compliqué parce que ñoom duñu gaaw a accordé ay interview duñu gaaw a dévoilé wu lan mooy indi loolu yéen staff mooy seen liggéey ci loolu. waaw euh, loolu parfois day am. parce que du chaque à chaque fois la jigéen bi di disponible parfois problème voix lay am parfois peut-être kanam bi mën na am benn bouton mu bañ. te xam nga yeneen jigéen ñi daal ñoo gën a compliqué góor ñi. waaw góor moom naturellement fii bokk. Hmm. suñu culture sénégalaise. Hmm. Euh, góor moom amul benn problème moom day génn rek seulement avancé. mais jigéen bi day bëgg saa yu génne aussi bëggal gars yi. Hmm. parce que c'est une star c'est normal. <laughs> d'accord euh. alors tey euh, blocage am na. si musique sénégalaise ba tey amaguñu opportunité américain yi dañu déglu nañu waxante dëgg euh, Niger yi lañ gën a déglu ñun sax ñuy dem copier ci Niger yi def suñuy son mhm. xam nga mhm. euh, lan nga gis loo xam ne mën nañ ko defal musique sénégalaise ba mu jëm kanam voilà loolu moom je pense que dañu war a liggéey bu baax a baax ci euh, digital bi streaming bi dañoo war a liggéey ci digital bi à cent pour cent parce que tamit bu ñu kenn naxan on ne la tête le visage affaire bi dañoo toll foo xamante ni boo nekk sur le net plateforme digitale bi doo mën a jàll à 100 pour cent et même say disque d'or disque platine foofu foofu nga am fa ay audience yu bëri pour que nga mën ko atteindre. Mm-hmm. donc je pense que yooyu artiste bu nekk war na mën a engager un professionnel boo xam ne mooy gérer carrément digital bi page yëpp nag. pour mën a mën a mën a def tapage bi carrément quoi dans le net. c'est important. Mm. du jënd streaming parce que mm, africain tàmmagu ko du ma ne sénégalais mais mm. africain tàmmagul jënd musique via streaming. Euh, waaw waaw loolu nag dañ leen ciy pousser rek parce que je pense que le monde d'aujourd'hui boo xoolee xale bu bon jeunesse bi quoi boo xoolee xale yi ñu gën a ndaw. ak ñi nekk à l'extérieur benn lañ. tàmm nañ ko benn lañ. Mhm. tey jii voilà quoi. ñooñu dinañ jëndee sax. voilà voilà di voilà quoi dañuy toog nekk extérieur ñooy gën a jënd. ñooy gën a jënd parce que ñoo gën a mën a comprendre. parce que mhm. fii dañoo tàmmoon di déplacer wu di wàcc tout le temps sur le terrain mais nit yi je pense que bu ñu leen booster jàpp euh, wan leen li nga xam te ne moom lañ bëgg a gis. ci seen page digitale dinañ def streaming bi carrément. est ce que yow est ce que tamit artistes yi xaw ñu facilitel tamit seen public c' est à dire bu ñu génnee album yëpp ñu def ko ci YouTube donc kooku da ngay dem ci YouTube déglu ko foofu noonu. très bien ah. loolu tamit mooy révélation boo xam ne il faut le faire parce que déjà tey jii si je conseille un artiste buy génnee album kenn dégloo kenn amatul temps jël CD d' accord donc li ñu mën a def mooy utiliser des clés support yooyu USB wala li gën a yomb mooy dugal ko dans YouTube. et je que gars yi ngi ciy commencé di liggéey. mais loolu est-ce que dina jaay musique bi. bon ça dépend defoon ko streaming gars yi dem découvrir yi son bi parce que loolu dama gis ne. Mhm. rappeurs yi ñoom ñoo ci gën a évoluer yaa dib dund gis koo xam ne réussir na ko streaming mhm. dafay jaay bu baax. Mhm. artistes yu mag yi comme Youssou Ndour. ñooñu Birima boo ko defaatoon ci streaming yi ñooy ëpp. effectivement sax lu ñu streaming. Mhm. lu ñu streamé que mhm. que yeneen son yi. Mhm. Euh, loolu est-ce que loolu tamit artistes yi waruñu cee gën bien sûr artistes yi loolu dañ ci war a gën a mën a travailler. comme je l'ai dit quoi. ndaxte récemment rek maa ngi koy waxtaan ak sama benn xarit moom tamit kii dedans junior ma koy nuyu passage euh, Papa Yoro Fall vraiment mu ne ma il faut ñu liggéey ci streaming yi à 100 pour cent ndaxte bon dafa nekk moyen boo xam ne amul personne en fait. non seulement dinañ la xam mais foofu tamit ngay gën a mën a gagner ay points donc streaming bi dafa nekk quelque chose boo xam ne artiste waratu ko ignorer en fait ci période bi ñu nekk. mais nag suñu artistes yi ñun fu ñu basé wu mooy YouTube am na un million de vues. <laughs> wala que un million un million de vues du xaalis. non du xaalis. Hmm? franchement expliquer gars yi ne leen un million du xaalis. <laughs> <laughs> waaw un million de vues de xaalis maa ngi ci maa ngi ci félicité Adiouza léegi ma gis ni elle est la première sénégalaise à mhm. faire dix millions de vues sur sept mois ci ci ci benn vidéo bi Euh, Madame Bonheur Madame Bonheur mm -hmm. c'est extraordinaire mais voilà je pense que yooyu yëpp c'est très bien mais il faut du il faut surtout ñu pousser wu du côté streaming bi pour mën a am dara ci musique bi il est temps ñu liggéey ci côté boobu carrément je pense mhm. que musique moom il faut saa yooy yeewee di xool li lay yokk saa yoo yeewoo di xool li lay doole avec les managers ñu jéem a toujours du ñuy mën a ubbee pour mën a jàppale seen artiste ba mu mën a jëm toujours ci kanam. Mm-hmm. mënuma la invité nag te laajuma la ay décembre récemment perdre na yaayam ak papaam gisu mu metti lool lan lay traversé moment yi. waaw lu metti mm-hmm. lu ñoo xamante ni papam ak yaayam juru leen sax metti na si ñun genre man tey ji affaire bi daf ma abattre wax dëgg yàlla. moom nag moom da ko touché moom à 100 pour cent parce que mm-hmm. était très proche de ses wax dëgg yàlla mm-hmm. c'est quelque chose de très difficile boo xamante ni man du ma si sax di bëgg di wax quoi mm-hmm. du ma si sax di bëgg di wax déjà incha allah demain lay def quarantième jour yaayam ñu ñaanal yàlla xale ko àjjana ba mu mën a jug moom encore mën a nekkaat ci liggéey bi mais muy lu metti lu metti lu metti mais nag quand même euh, gëm na yàlla te mi ngi koy gérer quoi mu ngi koy gérer. mais genre situation yooyu est-ce que staff bi tamit dina jàppale artiste bi. bien sûr parce que yéen tamit da ngeen soxla liggéey après xam nga. waaw waaw mhm. mais mais bon xam nga entre Aïda Samb nag ak staffam du loo xamante ni. liggéey rek a leen boole parce que il est tellement proche de ces de ces ces éléments ba nga xamante ni day mel ni famille la déjà bàyyi ut son papa yal na ko yàlla yërëm ak yaay ji fas c'est comme yaay mhm. xam nga bu voyage amee man mii damay jël sama temps dem Mbàkke def fa ay jours ay semaines toog fa. ak ay parents donc c'est extraordinaire nit yooyu dañoo jege woon euh, Aïda ak ay nitam ba nga xam ne Aïda moom vraiment booy liggéey ak moom tu sens que c'est famille quoi. Mm-hmm. du du loo xamante ne liggéey bi rek a leen jeex boole bu jàllee jàll na donc du coup na nit ñi à 100 pour cent mais bon xam naa gars yi dañuy nekk di liggéey ndànk ci suuf. bàyyi ko mu def deuxième tranquille mhm. ba mu mën a retourner bu ñëwee nag dina ñëw ak doole incha allah na ko ñëpp xaar jaaga <laughs> euh, kontaan nañ ci dalal la xam nga ñu am si musique bi xëy na artiste bu ko seetaan émission bi dina xam fu muy teg tànkam pour mën a évoluer ma bàyyi da nga doy tàggatoo rek waaw vraiment maa ngi lay remercier yow Aïda mhm. yow mi bañ a feeñ tey toj dëkk bi <laughs> di remercier Abdallah Mm-hmm. di remercier Tata Sophie mi nga xam ne moom mooy manager tey ji jardin bi moom li mooy liggéeye ah. ma mm-hmm. ah, donc voilà quoi moom environnement ci fleur yu rafet yi day yëngu e vraiment très disponible du ma nekkee dara moom da ciy sonn à 100 pour cent di remercier Tata Dina ma mm-hmm. reine di remercier ñi may seetaan ñëpp à travers Sénégal di naan Sénégal ca kaw ca kanam bonne fête de la musique à tout